Euh, précisément fi nga xam ne mooy kër euh, Abdoul Aziz Alé Ndiaye ñu ngi toog ak koo xam ne nag dootuñu pré ko présenté quand même ci li nga xam ne mooy showbiz ndax euh, ki nga xam ne mooy jëkkëram ak xaritam bi nga xam ne am nañ taxawaay bu am solo sur la culture sénégalaise mënuñu wax hip hop jamono ji te waxuñu Ngaaka Blindé te waxuñu Matadi ki ñu toog ak nii ngeen koy gis ci image yu mbokk yi mooy soxna su Matadi madame Matadi nuyu naa la. fay naa la. ça va maa Euh, nga ñëw gàmm si fii ci kër Abdoul Aziz Aly Ndiaye mën nga ñu wax un petit peu sa relation ak famille Aziz Ndiaye. sama relation ak famille Aziz Ndiaye dañoo nekk nit yu baax nit ñoo xamante ne dañoo ouvert nit ñu ma bëgg daal. Mm-hmm. d'accord mais dafa koo xam ni euh, fu ñu la gis rek la plupart dañ lay gis muy maman Ndiaye lan mooy sa relation ak maman ba complicité bi ñu bari di ko gis seen diggante. Mm, kooku sama rakk la. sama xarit bu mu bëgg sama rakk sama xarit mënuma wax ci moom mënuma wax ci moom bu ñu xamante yàgg na yàggul mais sama xol la daal mhm. sama xol moom ma gis ni complicité am na seen diggante ndax bu ma juumul démb sax yaa ko doon euh, partagé gâteau d'anniversaire am complicité boobu la moo ko def seen diggante kooku su ma amoon jamaa ma koy jox teraanga bu ngeen séq la wala teraanga buñ sekk la boole yàlla moo koy def mais ànd bu rafet sincère rafet jikko moo koy def loolu la wéykat bi wax daf ma wan jikko boo xamante ne bëgg ma aussi lu ma nekk mu taxaw ci nekk sama xarit ma koy ñaanoon nag yàlla na ko fi yàlla yàlla na ànd bi sax yàlla may ko jëkkër ju baax ko àttan alors ñëpp xam nañu ni Maman Ndiaye papam célébrité la tey bu amoon loo koy conseil xam nañu ni sa waajur nekk célébrité dafa dafa métti ndax dinañ ko bindal dinañ ko waxal souvent ak yu bëree bëri bu amul conseil boo koy jox ci statut bi muy dund lan lay nekk. moom sama xel dal na ci moom parce que demul dikkul foo ko gis mu ngi këram bu àndut ak man liggéey na wàcc ak suñu copine bi hmm, hmm. dal na kenn du ko gis ci leen lu ñàkk fayda hmm. madame Matidi ana Matadi ak sa deuxième jëkkër ñi ngaak ñoo ngi fi ma leen di gën a ñor. Hmm. naka ngay dundee souvent li nga xamee ni challenge musical buy am la Ngaaka Blindé gis nañu récemment génn na euh, di di confronté ki nga xamee ni mooy One Lyrical clash yooyu noonu nga xam Ngaaka xam sa jëkkër aussi naka nga koy dundee en tant que tamit euh, soxna si koo xam ni entre guillemets quand même ndax. Euh, mën nañ wax ni soxna su Ngaaka Blindé nga ndax ami keusam moom mooy sa borom kër. dëgg la ah clash bi dafa war a neex. Mm-hmm. dundewuma ko dara laa yéen a may ci loo xamante ne xaw ma ko. Mm. man je suis pas sa xalaat sama xalaat sama xalaat mooy nag gém bi neex. dëgg waxuma dëgg na neex. mais ñeneen ñi ngi donoon sax naan mënoon nañu def seen musique génnee ci seen i soxna du respect ngay classe soxna su jàmbur walla yow amoo gis-gis boobu. dëgg la waaye xam nga ñu loolu ñoom la engagé mënuma ci wax dara. Mm-hmm. du dëgg donc man daal na clash bi neex rek. Mm-hmm. mais nañ ci génnee seen soxna yi parce que. Mm-hmm. liñ ciy wax yëpp daal amul importance. soxna yi seen yoon nekku ci. waaw mais la ñuy wax de. dëgg la yi seen mm. nañ géem seen géem la te génnee ñu ci du dëgg. ñun dañuy sëy rek. mais mm. challenge bu amee ba ba gars yi di di def li nga xamee ni mooy clash seen diggante gi demee noonu euh, yow naka nga koy dundee ak sa borom kër bi nga xamee ni ñëpp xam nañu ni musicalement euh, kii di matali dafay accompagner bu baax a baax ki nga xam ne mooy Ngaaka Blindé. day nelaw ba yàndoor du ma xam sax la dëkk bi di riir. Mm. dara nekkul ci ay clash du ma xam lu dëkk bi di damay dégg daal ci tiktok bi nii laa koy romb mais vite fait mais comme ni ngeen koy gisee rek laa koy gisee. nan nga koy borom kër nga xam ni mooy accompagner daf mel ni mooy may doole ngaa ko balandee ci wax dëgg yàlla li nga xam ne moom lay def de. xanaa di ko ci lu ma koy dundee. day ñëw gis ngaa ko gis ko fa nee nañ sax léeg-léeg est-ce que du mooy pousser ngaa ko ci yenn yi. ah loolu est-ce que doo leen ko dem laajte matadi loolu est-ce que doo leen ko dem laajte xamu ci dara man dinaa gis daal clash yi daal muy dàkkante si réseaux sociaux yi mais dama comprendre. d'accord ngay soxna si matadi ñu bari ci amateurs yi di laajte ni matadi rappeur bu ñu xam na bu am temps mais lan moo tax nanguwul génn dëggal boppam a chaque fois rek bu ñu koy gis muy suivre ki nga xam ne mooy. Ngaaka Blindé yéen a ngi may tooñ de. non sa xalaat rek sa xalaat ma ci dara li ñuy wax naan dafa nanguwul génn liggéeyal boppam ak yu demee noonu yow moo ci xalaat. matadin gaa ko duma ci wax man mii sax xajuma ci lu dëgg. Hmm. donc duma ci wax. mais mais xam naa di nga di nga leeral Sénégalais yi parce que Matadi ak Ngaaka bu ñu nee ñii ay màgg rakk lañ ñi ko xamul dañ naan dëgg la complicité bi am seen diggante ak déggoo bi am seen diggante macha allah lan nga ñu mën a wax ci seen diggante ñoom ñaar ba complicité bi ñu réussir ko seen diggante ñoom ñaar. seen diggante ñoom ñaar dama leen fekk ñuy ànd ànd bu rafet man ba ma ñëwee duma def lu dul gën a def seen ànd bi mu gën a rafet. kenn bañ leen dégg si lu ñàkk fayda te ñu bañ a tàkkalikoo di leen ñaanal nag ànd bi yàlla na gën a sincère hmm. ni ñu tuddante ni ñu ni mu ko li ko mate di tuddee doom yàlla na nañu dem ba seen doom yi di tuddalante ay doom ndax yomb na am jëkkëru jeune mais aussi jëkkëru artiste rappeur yomb na yombul hmm. mu yombee ak nu mu bañ a yombee mu bañ a yombee hmm. mooy ni da ngay def sa man jàppeewu ma ni ma tëddi laay sëyal ma tëddi ma ñëpp la man daam lay sëyal xam nga daam kenn xam ko ma tëddi lañ gën a xam donc ma tëddi dama koy ma tëddi bi dama koy bokk ak ñépp rek daam bi nag sama daamu bopp la. mais mais évident na léeg-léeg doy toog xëy na tournée war a am war a génn war a nekk xëy na. Euh, di ci ay euh, activité musicale am ba xaw a guddeewu yu demee noonu loolu yomb na ci jigéen xale aussi nga supporté ko. ah ku nekk ak euh, sa gis-gis man moom ci loolu laa ko fekk donc ama ci benn problème. Mm-hmm. Mm-hmm. damay jàpp ne ci liggéeyam rek la nekk. d'accord est-ce que na la arrivé nga dem assister répétition ngaa ko Balende ak Matadi mais aussi lan moo la ci gënoon impressionné quoi musique bi ñuy def ñëpp xam nañu li c'est un peu chaud dafa tàng. nga assisté leen ci répétition boo xam ne xëy na au début euh, jaaxaloon na si am na ñoom saa yu ma leen toppee damay nelaw ba ñu ba ñu yónni ma ma ba ñu euh, yóbbante ma pour ma ñibbi parce que. seen niveau attanul ay nelaw ma gën a lu nekk. d'accord donc du ma mën toog studio di leen assister tout le temps. Mm-hmm. am sa njëkk bi yaa njëkk bi sama njëkkee. sa kii sa wujju peccor go sama wujju peccor jàmm bu baax gis tendance bu bees muy chirurgie gis nañu ne star yu bari jamono ji euh, dañuy naan euh, def li nga xam ne moom moo di chirurgie dem euh, fi nga xam ne moom moo di Tunisie donc temps yi jël nañ Tunisie moom tout récemment gis nañu mu dem def vidéo daal di woon mu indi polémique ñi naan war na dem ñi naan waru ko def donc coowal chirurgie bi noonu lañ ko dundee. yéen a ngi may tooñ de yéen a may tooñ su nekkee sama wuju peccor nag. c'est sa vie privée ah, man xam nga xaw ma lu ñuy chirurgie wee xaw ku ko def mosuma gis ku ko def. tout est naturel. tout est naturel. c'est le travail de maman. travail de mhm. maman. ngi koy am léegi Sénégal parce que bu njëkk ba soo déggoon ko def chirurgie balaa nga koy déggaat yàlla xam mais léegi tendance bi daf mel ni xale jigéen ñi sax euh, defante la en fait ku defa chirurgie bokkoo noo dundee tendance bu bees. sama bopp laa gis du dëgg xale jigéen yi ngeen may wax nii sax duma leen gis duma leen gis xaw ma ko ci sudisi mais problème bi ñuy wax naan sa wujju peccar go da ngeen ko am yaag Fatel est-ce que dëgg la hmm. suñu jëkkër yi duñu ay xarit ay ay frère lañu dañoo ñëw fekk leen ñuy ànd donc wujju peccar go bi du sax sama wujju peccar go sama rakk la que ñu bëri dañoo ne woon ki nga xam ne moo di jabaru Matit yi ak Fatel au début collé la woon mais léegi gis nañu ne am na distance ñu bëri na dañoo jote ñu na ñuy teew ñuy nataal nga leeral loolu. amuñu benn problème foofu sax man duma seetaan problème di fa am parce que maa jiitu donc man may diriger Fatel sama rakk la amul problème ku nekk duñu gis nag tout le temps parce que ku nekk tey jii yaa ngi sa kër di gérer.